Euh, affaire u Cheikh Bara hmm. lu ñëpp di ñaawlu la ñun man ñun waa Touba dañ koo ñaawlu fii bu baax a baax ci naka Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur parce que dafa diffamé dafa diffamé Thérèse Faye Diouf hmm. loolu diffamation la te Cheikh Bara mu wax la ci benn affaire moom amul benn expertise bi jàngul ay nit ñoo koy woo ci suuf di ko jox ay information naan ko waxal boo demee ci sa chronique waxal nangam est-ce que xam nga ne loolu tey waa ah, yooyu yaa ngeen dafa diffamé Thérèse Faye de mbaa yooyu moytu ko diffamé de parce que léegi moom danoo gaaw ci pelante moom daf ko diffamé parce que tey li ma la hmm. xamal mooy naka nga mën a waxee nit ne moom am na immeuble bu jël tant de milliards te amul benn papier bu ko mën a justifier yow boo génnee ne kii moom moom immeuble bii mais kooku buñ la woowee bi mu génnee gis nga ñu ko woloo ba mu génn est ce que joxe na fa benn leeral amul benn preuve mais mais dossier bu ne en instruction est-ce que moom itam sañu see wax daf ne day bàyyi avocat mi ñu wax ci moom mënu si wax mais vidéo yaa yim fi waxoon a ngi fi moom mais bi ñu ko laajee xam nga lu mu wax ay rakku Mariam Faye bii fii woolu nañ ko rakku Joomaay dégg naa woolu woon nañ ko nangam yow ñu ngi la laaj ci sa fee mais mais loolu dara expliqué ne liñ doon xaar ci justice ñu ngi koy gis ndax li mu def noonu gëj nañ ko gis nguuru président Macky Sall gisoon nañ daanaka boo porté plainte ko faree nguur gi pour ñu woola déglul la sa problème la amul benn commentaire bu mu war a commentaire ci ay euh, rakku Marème fay bi wala mu commentaire ko ci ci ci ci ci ci kii. Euh, rakku Diomaye rakku Diomaye Faye bi te te te Thérèse Faye Diouf femme bu dynamique la femme bu baax la bu nopp bu jàpp njàmburam Cheikh baara Ndiaye nag daf ko di diffamé te loolu noonu fi mu nekk nii tey boo xoolee buntu tribunal ñan nga fa doon gis ay avocat yoo xam ne ci mouvance présidentielle bi lañ bokk. avocat yi nag ñoo yàgg doon seen i avocat ñoo leen doon layal ñoom maître Moussa Sarr ak ñooñu a wax mën nañoo xam nga mu amee tey boo gisee maître Amadou Sall ak ñooñu noonu ñoo défendre ba jaxate doon la rek de fii justice mënu fi am hmm. justice boo xam ne yow sa client avocat Ousmane Sonko moo nekk bii nag moo doon défendre Cheikh Bara démb avant tey de dafa ne da ko défendre gouvernement bii nii hmm. ah, amutul amut justice euh, indépendance am joxuñu ko et puis. non mais est moom bala nga sori xam nga gouvernement bi moom defaguñ fi dara lu bees si si dafa nekkoon rek la ñuy continuer. ba jaxate ba jaxate war nañ ko bàyyi. si hmm, naan le fait dañ ko dañ ko war a bàyyi. ak li mu fi wax lu garaaw loolu lépp. Cheikh Bara Ndiaye li mu wax a gën a garaaw foofu. Cheikh Bara saagawul de. waaw mais diffamation. mais diffamation xam nga diffamation. bii bii déggoo ma naan déggoo ma ne déggoo ma naan ñu ne Thérèse Faye ji ma naan man Marcel Faye sax laa koy wo waaw loolu dafa mais c'est parce que moom ci boppam këram ku fa duggoon dugg ci ay jabaram wax ne nii wala naa nangam naa dana met parce que moom Cheikh Bara ci boppam man man xam naa baayam xam naa ko papaam nit ku baax la bàyyi ma Ndiaye jaara man sama papa wool na ma ba taay ne ma wool ma sa bàyyi ma Ndiaye jaara mu ñëw. Uh-huh. fekk ma ci kër gi. dafa am loo xam ne moom ci boppam ay nit ñoo koy ruux naan ko defal lii wala waxal lii mais li mu def Thérèse Faye Diouf loolu mën na ci tëdd kaso su fekkee bàyyi na justice mu def liggéeyam. ci naka indépendamment. mais diffamation mais diffamation amul peine condamnation ngay tëdd kaso amende moo ci am ay six avec sursis mais amende bi boo ko fayul nag waaw contrainte par corps la loolu it bu fekkee décidé wu bi boo ko fayul euh, ci bi muy joxe délibéré dafa ndànk de amende bi boo ko fayul nooy def contrainte par corps lañ la a def parce que boo xoolee bi ci gën a simple su ma jumul boobu bi ma fàttali ko léegi ku mel ni Taïb Socé lañ ci mos a te loolu sax escroquerie la woon dafa fayutoon ñu yóbbu ko contrainte par corps lii nii sa amende xam nga bépp amende même boo ko fayul mën nga ci dugg parce que boo xoolee ci projet Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang waaw ñii di awakaay Mame Mbaye Niang dañu doon demandé siis bi. mu defaale si ordonnance de euh, délivré bi ne. bu fekkee fayut ñu def ko li ñu naan contrainte par corps jël ko yóbbu ko prison bu muy fayee wax nii amande bi da nga ne amande léegi avocat yi treize ñoom foofu lañ war a liggéey pour Cheikh Bara mën a tëdd kaso. te et puis affaire bi mën naa gën a mën a grave hmm. parce que division de fausse nouvelle tamit loolu tamit aussi mën nañ ko ko mën nañ ko ah, ko. déet mais xam nga. moom. plainte bi bi Thérèse joxe moom liñ ci gis ñun. waaw mooy diffamation man droit bu fekkoon nag dafa ne diffusion de fausse nouvelle moom comme li dal ay Bah Diakhaté. am naa dégg naa ñu bëri sax di kii kaay mais na ba ci loolu bu neexee mu porté waat plainte loolu après plainte la bu neexee mu ñaareel ak ay nangam nangam ak gis nga suñu constitution yi hmm. il faut ñu changer ko parce que gis naa fi temps yi professeur Mounirou Mounirou Sy Mounirou Sy xaw ma ñu invité ko ci benn plateau ci entre deuxième mandat troisième mandat président Macky Sall xam na la mu ne président Macky Sall de su fekkee demaat nañ moom moo war a toogaat su fekkee élection yi am na problème wala dara ñu laaj ko ban article. mu ne non loolu am na benn kuréel gu am Tunisie fa lañ ko doon waxtaan nangam nangam moo tax gis nga ñun suñu constitution bi 1960 la ba léegi. Hmm. il faut ñu def ay réformes ñu def révision de la constitution man bu may xalaat ci Italie ay Espagne ay France seen constitution ak seeni loi xoolaat fii man damay damay damay damay damay kii waaw yow Cheikh Bara Ndiaye lan moo leen jot léegi Cheikh Bara. joteluwuñ dara Touba gi la dëkk Touba mais mais nga dëkk mu dëkk mais taalibi Serigne Touba nga doon ko. mais mu wax ak Thérèse Diouf fay ñu ngi ci yoon yoon a ngi lijjanti dossier ba. mais def na enquête am pare jébbal na ko procureur. tey jii yow it nga bugg a toog di attaqué waat Cheikh Bara li muy wax dalaa déranger wala. Cheikh Bara suñu booy la mais man Cheikh baara ci boppam toog naa benn politicien bu mag toog. Mhm. boo xam ne da doon xëccoo benn localité ci benn gox ak benn politicien bu mag la ko doon xëccool booy ba moo doon xëccoo politicien bu mag Cheikh Bara Ndiaye woo le politicien fu mu dëkkee Touba wala. non damay a dabaale quoi. Cheikh Bara Ndiaye mu dëkkee dootul turam mais fu ñaari candidat la candidat bu ndaw bi bokkul ci mouvance bi candidat bu mag bu ma bokk ci mouvance bi. Cheikh Bara Ndiaye woo booy bokkul ci mouvance bi mais libre la de maa ngi kër booy bi mu naan ko léegi xam nga nooy def. comme sa waajooju ci mouvance bi la bokk da ngay fexe noo am ak moom benn rapprochement toog waxtaan su ngeen toogee waxtaan yi ñaar ci kàddu nga ne ko dama lay jàppale boo woo wax ma ko su ma demee ci sama émission di chronique ma defar fa sa der waxtaanal la fa waxtaanal da ngaa bëgg président Macky Sall waxtaanal ne moom ngay jàppale su ko defee li nga bëgg nga am ko. mais kooku si moom Cheikh Bara Cheikh affaire est-ce que ak Cheikh ni mu ñàkkasee mos ta waxal président lu rafet est-ce que loolu amul arjuma gis nga Sénégal li ko yàq man buntu tribunal keroog ay Mara ñas fii ay Cheikh Bara Ndiaye ay Saa Wolof. ay nit ñoo xam ne tekkiwuñ tekkiwuñ dara